Euh, mbokku téléspectateur euh, Ngeckox TV ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax ci talaata bi ah, di leen kontaane macha allah ah, di ñëw ak yéen rek ci seen émission Eh, di waxtaan ak yeen ci 8 eh, mars bi nga xamantene eh, moy wèr wi nga xamne mom moom lañ jagleel jigéen ñi ñoo ngi siyaare wa campement ko yëg dugg ci gox gaxaan yëpp di leen jox siyaar bi di siyaare wa jamm gën wa Pikine wa yaakaar ñoo ngi leen di siyaare bu baaxa baax way wa espérance duñ leen fàtte ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax macha allah di leen contané dem ba li rek di leen siyaare bu baaxa baax incha allah ñi ngi ñew ak yeen nak ci seen émission ci 8 mars bi ci jigen nga xam ne mooy weer bi nga xam ne dañ ko jagleel jigéen ñi nga xam ne ñoom rek ñoo ko moom waaye xam nga ne jigéen borom bi subhaanahu wa taala daf ko eh, teral ndax borom bi subhaanahu wa taala moo jëkk a tuddee jigéen saar eh, ci alquraanul karim muy soratu nisha nga xam ne eh, baqara ba naas gisoo ci soratu rijaal waaye soratu naas moo ngi ci biir mu am ay atte yoo xamante ne dañ ko jagleel jigéen ñi macha allah jëm ci jigéen ñi mais xam nga ne jigéen dafa nekkoon koo xam ne ku lottu woon avant islam di ñëw jigéen ku lott la woon avant islam di ñëw euh, nekkoon koo xamante ne ku ñu tuutaloon la ku ñu doyadil woon la jigéen nekkul woon dara demoon nañ ba oote benn euh, euh, benn réunion bu mag a mag a mag boo xamante ne pour mbiri jigéen ñuy xool jigéen ñi di xool ba xam jigéen lan la jigéen est que am na bakkan jigéen est-ce que war na wax jigéen est-ce que am na droit ñu ne jigéen amul droit jigéen warul wax jigéen daal bu ñu soxlaa mu wax bu ñu soxlawul mu bàyyi demoon nañ ba nga xam ne jigéen dañuy jël euh, tuñu kawam ak tuñum suufam jël kànnaar kànnaare ko euh, li ñuy wax ne birima boo xee ren balaa waxati déwén moo nekkoon jigéen ñuy jànkoon ne coono yu metti yooyu euh, muy jigéen waaye de doy loolu doyul ñu dem boo demee ci ci ci ci indo yi euh, dañ jëloon jigéen euh, def ko ki nga xamante mooy ki nga xam ne bu borom këram génnee àdduna euh, dañ koy jël lakk ko boole ko ak borom këram dëbb ko ba moo ko mu nekk sunguf ñu sotti ko ci benn butéel butéel boobu boo seetloo ci film indo yi da ngay gis ay butéel yu ñu teg noonu ay sungufi nit ñi nga xam ne dañ génn àdduna ñu ne jigéen daal bu borom këram génnee àdduna waratul a dund jigéen tollu woon na foofu jigéen dellu siwaat ñu ne jigéen warul donn jigéen du donn jigéen amul droit ci société bi jigéen warul wax dem nañ bay laaj est-ce que jigéen war na lekk yàpp nga xam ne kon jigéen doon na jànkoonteeg lu metti boo demee ci arab yi ku ci amoon doom bu jigéen danga koy gas ba mu xóot nga suul nga ne jigéen gàcce la jigéen gàcce la ku ko am gàcce la parce que magu arab yi ku ci toogoon euh, sa soxna am doom bu ñëwee na la diw day am na doom sa soxna nga ne lu mu am nga ne jigéen nga ne ah waccax sa bopp ñëkkal sa kanam mer ne ah jigéen nekkul dara jigéen daal gàcce kese la kon jigéen nekkoon na koo xam ne ku sonn la ñu dem ba nga xam ne jigéen bu amee borom kër nekk koo xamante ne borom këram génn na àdduna taawu ki nga xam ne mooy borom kër gi dafay ñëw ne donnu naa samay soxnay papa comme ni ma donne sama alalu papa kon jigéen nekkoon na koo xamante ne ku sonn la avant islam jigéen doonul woon dara mais bi islam ñëwee nag na nag moo leen jox seen gëdd ne leen hee yéen jigéen ñi ak góor ñi yéen a yem. innal muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wasaadixina wasaadixaat wa wasaabihaat ba ila axiril aaya ahada allahu mahfira wa ajaran azima kii kii julli ci jigéen ñi góor ñi ak kii julli ci jigéen ñoo yem képp li ñuy fay kii julli ci kii muñ ci jigéen ñi ak kii muñ ci góor ñoo yem képp ba aaya bi jeex kon islam moo ñu jox gëdd moo ñu delloo fi nga xamee ne suñu delluwaay la ne jigéen dafay donn jigéen demoon na ba du donn mu ne jigéen dafay donn kon islam moo ñu jox suñu gëdd kon ñun jigéen lépp lu ñu mën a def nañ delloo njukkal borom bi subhaana wa taala ndax moo ñu génne ci buumu njaam muy lu am solo kon jigéen dafa am rol ci ci ci société bi góor ñi mënuñu dem sans jigéen kon góor ñi war nañu jàppale jigéen ñi bu baax a baax a baax muñal leen li nu ilayha waaye ma wadda wa rahma ñoo ñu ne jigéen ñi ñooy seen noppalukaay waaye góor ñi war nañu yërëm jigéen ñi parce que jigéen ñi jàmbaar lañu dañuy liggéey di indi ci kër yi dañuy xëy suba ba ngoon jot di daw di indi ci kër yi di toppatoo njaboot gi kon nekk na koo xamante ne góor dafa war a teral jigéen kon weer bii ñu jox ñu ko góor gu nekk war na ci càmbaraat boppam xool année bi yëpp douze mois yëpp moom lan la defal jabaram lan la jàpparee jabaram parce que dafa am solo parce que borom bi subhaanahu wa taala santul jigéen xorom rek ci biir këram lépp borom këram moo ko war a def mais bu fekkee yàlla dimbali na la yow ku jigéen ki parce que yàlla mooy maye mun na may ku jigéen ki loo xam ne mayu ko ku góor ki bu boobaa la nga def ko ci sa teeyu bakkan waaye yow tamit ku jigéen ki bu ko puukarewoo bu ko tiitaroo ne man maay def nangam ak nangam parce que sëy jaamu yàlla da te lépp loo ci def ëllëg borom bi subhaanahu wa taala daf la koy delloo kon jigéen dafa am rôle bu rëy rëy a ci société bi. di ko war di doxal te ñi ngi ci nag ñi ngi ci tànk yi di ko def kon góor ñi war nañ jàppale jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne ki gën ci yéen mooy ki gën ci ay soxnaam waaye man Mouhamed maa gën ci yéen ndax maa gën ci samay soxna ku jàppale woon ay soxnaam la ku leen dimbalil woon la ku leen ñeewante woon la ku doon fow ak ñoom la moom yonent bi sallallahu alayhi sallam mu am solo lool waaye jigéen ñi nekk ñoo xam ne ñu dëgër boo seetee Sayyidatuna Khadija mooy soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na koo xamante ne ku jàppale yoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na ko rafet. waaye nekkoon na ku bari alal waaye nekkoon na veuf am ñetti borom kër yu génn àdduna waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon koo xam ne daf daan ñëw di jë di liggéey si ci moom parce que ku bari alal la woon bu xëyaat njëg mi dañuy ñëw di di ut di liggéey di ñëw mu leen fay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na Xadija mi nga xam ne mooy soxnaam waaye Xadija bi mu demee ba gis jël jaamam ba saarata ba mu toppal ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba gis ci ay miracle yoo xamante ne doy na ko mu daal di ne xale bii laa bëgg a sëyal mu am 45 ans Mouhamed am 25 ans mu tànn Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam pour ànd ak moom. mais ku ko jàppale woon la parce que papaam génn na adduna yaayam génn àdduna papaam bu ndaw génn àdduna maamam Abdul Mutalib génn àdduna yatim mu nekk ab jërim moom Mouhamed sallallahu waaye wa sallam waaye Seydinatu Seydatuna Khadija moo ñëw encadré ko téye ko jàppale ko ci alalam ci xelam ci xalaatam kooku jigéen la woon kon grande dame Khadija. ñu dellu si ci yaa Aïcha mu nekk jigéen joo xamante ne ku jàmbaare la woon ñaata xadis la mokkal ba yonent bi sallallahu alayhi wa dana jël leen seen genn wàllu diine ci ndaw su xees yi ku soo ne su diine xaasis homira jël leen seen genn wàllu diine ci ndaw su tuuti su xees si ku mënoon économique la moom moom xadis moom sayyidatuna Aïcha ku xamoon politique la ku xamoon état la dañ daan teg ci état bi mu teggi teg te li mu teg dafay dem. amoon xel te jigéen la woon kon jigéen ñi dañu yàgga lii boo xootee parité bi Seydina yonent euh, borom bi subhaanahu wa taala moo jëkk a parité jigéen ñi parce que parité bi mooy lan ba mu ne jullit bu góor bi rek bu jigéen bi la ci teg muñkat bu góor bi muñkat bu jigéen bi la ci teg kon moo ñu parité kon ñun jigéen ñi dañu am loo xamante ne góor ñi amuñu ko ñu war ko jàpp bu baax war a góorgóor lu baax mais liggéey boo ci gisee sa bopp doo ci am fay lii ñuy def ñi ñu ñuy apprécier jigéen ñi jàmbaar lañu def ne bu ñu demee rek ba we ba beew bu boobaa dootuñu am fayu borom bi subhaana wa waaye bu ñu bu ñu liggéeyee dafay nekk nul ñu bàyyi ci xel bu baax jigéen ñi sonn nañu ñi ngi liggéey ñi ngi def mais ëllëg fayu borom bi subhaanahu wataala lay doon euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax ñu xool Sumayya jigéen la wonte deretam moo jëkk a tuuru ci islaam ku jàmbaare woon Asma bintu Aboubacar Saddiq dafa nekkoon koo xamante ne dañ ko doon wooyee borom ñaari ceinture yi euh, bu ñu demoon di xeexi euh, daf daan takk fii ndox fii lekk ànd ak ñi nga xamante ne dañuy xeexi ba xam ne bu ñuy bu ku ci daanu dafay dem faj la nekk di liggéey croix rouge te kooku jigéen la woon kon jigéen dafa am solo jigéen dafa nekk rolam rôle bu am solo waaye lu muy def ma waxaat ko encore une fois bu mu ci gis boppam bu mu ci gis boppam parce que jagle borom bi la subhaana wa taala waaye képp ku teral jigéen yàlla teral la waaye képp ku ko toroxal yàlla daf dina la toroxal mu nekk lu leer kon góor ñi war nañ jàppale jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax a baax di leen dimbali parce que amuñu doole damay wax ne jigéen euh, dangay gis koo xam ne moo nekk taaw ci kër gi ñu muur ko mu dem sëyi waaye ki nga xamante ne moo nekk caat góor ci kër gi du déplacé wu kon jigéen yàlla moo ko bindee noonu euh, jële ko ci suñu faaru càmmeñ maam Adama jële fa maam Hawa kon affaire bi noonu la noonu la demee kon jigéen am na solo trop trop trop ci société bi am na solo trop. lépp euh, kon 8 mars ngoog nekk loo xamante ne macha allah jigéen ñi ñoo ko moom waaye yàlla bu ñu yàlla may ñu gis suñu bopp ci li ñuy def yàlla nañu yàlla dëgëral may ñu xolu muñ ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom ñuy góor ñi ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax te xam ne ñun la yàlla boole mënuñu tàqalikoo ñu mënta tàqalikoo dañuy ànd ahiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah